Nous avons fait di waxtaan avec ak population et les acteurs communautaires yi si euh, réseau bu installé benn extension de réseau est fi pour inviter les populations expliquer comment ils vont comment procéder pour mener le branchement euh, à ce réseau là également waxtaanee ak ñom ci réseau bi lan la laaj ban comportement sensibiliser les ndax xam nañ ni quand même Rufisque euh, comme dans d'autres villes malheureusement le mauvais comportement fay impacter le bon fonctionnement du réseau donc là, laayante biir avec les populations utiliser relais communautaires, yi nga xamante ne seetaan nañu benn yoon si liggéey bi ndax porter voix un seen euh, waxu ONAS discours honnête, loin de la population bi ba nga xamante fonctionnement réseau bi dina dans l'intérêt euh, de toute la la, la population. de faire réaliser très souvent des euh, projets sociaux lu même le projet d'île. villes. Euh, c'est un projet bo xamante ay branchements sociaux la andal population yi contribution bu ndaw rek lañ ciy def c'est le projet qui prend tout en charge mais bi ni par exemple bi ñu extension bi ñu tax bi ñu fi indi tay extension c'est l'ONAS qui l'a financé donc forcément comme il se passe d'habitude population prend prendre euh, en charge les usagers la la le branchement dinañ xol nak naka lañ koy yombalé waye kenn ku dépendant de sa situation par rapport au réseau lañ lay tamit defalee devis extension de réseau bi nga xamantene mom lañu réaliser fi ci Arafat réaliser ko si quartier fi ci biir Rifisque mu ñëw fekk ici li nga xamantene moy projet social bi nga xamantene moy mooy dix villes yi nekk en cours arrêté won ben moment mais redémarré wat donc euh, extension yoy ñuy def constat la bo xamantene ne dañu seetlu ni quartier bu melni Arafat réseau bi dafa wul fep au fur et à mesure ñuy xol nu ñu étendre réseau bi pour que au moins ñëpp mën ci jot parce que assainissement dafa nek lo xamante légui service essentiel la population bi ñëpp ci wara mëna jot ci réseau Ibu ba taxna tay ji motax ñu ñew ñëkke fi nga moy Arafat réaliser fi presque 800 mètres linéaires de réseau permettre presque une centaine de maisons ñu mëna raccorder wu ci réseau boobu niñ ko défé Arafat non lañ ko défé ci yenen quartier té non lañ koy continuer di def si suñu ay projection en plus de ça programme sociaux yi aussi tamit ñi ngi ñew li ñi ñaan mooy Rufisque xam nañu actuellement moy zone extension wu Dakar ay quartiers yu bess ñofu fi zone ba paré assainissement bi demeewul noonu donc avec le temps ak les années à venir inshallah allah dinañ fexé ba quartier yooyu yëpp ñu mayé le réseau d'assainissement. dafa am lo xamantene population bi si bopam moko war njëkk mëna manam première soin li ñuy tuddee première intervention population moo ko war def te bur nga balaa ngay def intervention déjà amal déjà ben comportement boo xamante ne moom la si bëgg ci utilisation réseau bi lépp loo xamante déchets solides là, la ñu éviter que pour muy dugg ci réseau bi réseau d'assainissement bi lépp la ñu bàyyi réseau bi ndox rek di ci dem ñuy bàyyi aussi tamit muy taw ñuy ubbi réseau d'assainissement au usées parce que ndox bobo buy charrier suuf si muy dugg ci biir réseau bi dafay fat te bu fàttee dana tax ndox bi du du dem wala soit parce que dëkkuwaay yi dangay gis ñaari kër yu taqaloo benn kër gi dafay suufee par rapport ak beneen bi mais bu fàttee wala objet solide yooyu tey nga koy utiliser di ko def ci réseau bi bu ko fàttee mën nga lor sa dëkkandoo te xam nga ne lu ñuy wax ci àqu dëkkandoo.